أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñoo ngi nuyu mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi yëpp di nuyu diglukat yi nga xam ni ñooy diglu rajo Touba Hizb Tarqiyyah Band FM 95 point 6 ñu mën ñoo am mbari ci internet ci ñett w point htcom point sn fas yéene ànd ak yéen seen émission bi nga xam ne moo di taarixu lislaam suñu nuyoo itam ak suñuy ziyaare ñu koy tàmbalee ci Cheikhuna Cheikh Salih Mbacké di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér kon xam ngeen ni émission bi jàll ñu ngi àndoon ak sëriñ Habib Diop mu tàmbali woon téere bi nga xam ne moo di alminahul miskiya te itam sëriñ Mouhamed Lamine Diop Dagana bind ko di ci feeñal yenn ci ay kéemtaani Cheikhul Khadim muy wér yoo xam ni dañu koy indil ngir mën ci jàng lu bëree bëri ci dundub Cheikhul Khadim ak li nga xam ni aju na ci ay kéemtaan yi nga xam ni feeñal na ko ñuy dellu di sant bu baax a baax mbokki déglukat yépp di sant ñi nga xam ne itam ñooy woote fii ci rajo bi di wane seeni mbégte ak bàyyi xel gu ñu bàyyi xel émission bi nga xam ni moo di taarixul islam ak itam di wane seenu cant gu ñu jëmee ci Serigne Habib Diop ci leeral yu am solo yi nga xam ni ñu ngi koy def ci rajo bi te lépp tàbb ci biir liggéeyal Cheikhul Khadim kon mu mel ni dañuy jox Serigne Habib Diop mu nuyoo ak mbokki déglukat yi te tàbb ci biir liggéey bi nga xam ni mooy émission bi nga xam ni moom lañ waajal tey.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أه، بوكي جليدي بوكي طالبي noo ngi dellu si fii tey di leen nuyu te di leen jaar di jiital ci nuyu bi sayidina wa mawlaana Cheikh Salih Mbacké yàlla na ko fi yàlla doon lay yàggal te doon li ko ak wér ba li mu bëgg a liggéey Sëriñ Tuubaa lépp mu liggéey ko booleel ñu ca ña koy liggéey le jaaji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi siyaare bokki jullit yëpp rawatina ñi nga xam ne ñooy sonne déglu émission bi te itam di wax seenu rafetlu ko di ci jariñu noo ngi leen di ziyaara di ñaan suñu borom boole nu ci jariñ ñee ngi téléphoné ñee ngi yónnee ay wax ñee ngi dajeeg ñun di wax lépp di ci feeñal seen yéene lépp rek du lenn lu dul ngir bëgg Sëriñ Tuubaa ak am pas-pas yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa te loolu rek la borom téere bi bëggoon ci téeram bii kon noo ngi noo ngi gërëm ñëpp noo ngi noo ngi sant ñëpp. ñu war a dugg nag ci émission bi tàmbaliwaat ci xissa yi nga xam ni ngeen bi leen fàttali noo ngi woon ci téere bi ñoo alminahul miskiya fil xawaariqil mbakkiya ginnaaw boo xam ne irwaawu nadim jeex na bi nga xam ni moo doonoon histoire lenn ci xibaar yi histoire sëriñ bi bii nag ñëw dina xamal lenn ci jagley sëriñ bi ak i kusuufaatam ak i xawaariqam te jublu wuute rek. nettali dong waaye daf cee jublu ni mu ko waxee ci njëlbéen gi dolli ak bëgg ci ñi nga xam ne ñu bëggoon Sëriñ Tuubaa xisa yi ak téere bii doon loo xam ne dana leen mën a jëriñ ak dolli ko bëgg Sëriñ Tuubaa ñi nga xam ne umpale woon nañ ko réere woon nañ ko bu bëgg nekkul woon ci ñoom it mu mën leen a jëriñ ak bëgg Sëriñ Tuubaa loolu rek la ci jublu nga xam ne laabiire mbokk yi rek la ci jublu te diine lépp laabiire rek la kon. loolu rek ci jublu yàlla na ko suñu borom defal ñu war a jublu ci liggéey bi nag tàmbalee ci xisa bu njëkk bi nga xam ne ci lañ waroon a ci lañ yemoon keroog mooy xisa bi nga xam ni naar bi ñu daan wax Zarruq mu ngi tudd Mouhamad Ibn Ahmad Baba te sëriñ bi daan ko dàkkantale Zarruq ngir daf ko bindaloon te téere taalifu Zarruq ba wala Xattaab loolu lépp dina ko wax ci biir xisa bi ab xisaam ci la ñuy tàmbalee wa minha قصة محمد بن أحمد بابا الأحمدي الديماني الذي لقبه الشيخ بزروق وبه اشتهر عند السوادين وبحطاب فكان الشيخ يباسطه كثيرا ويأخذ بأنفه أو بأذنيه ويقول له أنت زروق تارة وتارة حطاب لقبه الشيخ بهما لكتبه له تاليفيهما أول تعارفهما إيه بكنا قصة يعيوه xisa naar bu ñuy wax Mouhamad ibn Ahmad Baba al Ahmadi ad-Daymaani yi te sëriñ bi daan ko wooye Zarruq te tur woowu sax la gën a siiwi fii ci Sénégal Zarruq te jëlee ko gën a siiw te sëriñ bi ko tudde woon léeg-léeg it mu daan ko wax Xattaab ñaari tur yëpp la ko daan wax sëriñ bi dafa daan kii kaf ak moom lu bari di jàpp ci nopp yi ak di jàpp ci bakkan yi léeg-léeg mu ne ko yaay Zarruq léeg-léeg mu ne ko yaay Xattaab li tax sëriñ bi di ko tudde tur yooyu le sëriñ baa ngi njëkk a xamee moom ci moom ci ci ci mu bindal ko taalifu ñaari borom xam-xam yooyu la Zarruq ak Xattaab ku ci nekk borom xam-xam la boo xam ne dafa taalif taalif am solo taalif yooyu nag moom naar bi moo ko bindal sëriñ bi mooy seen ko xame looloo tax mu di ko ko wax fu mu ko gis rek fàttali ko taalif yi di ko wooyee turi borom taalif yooyu wa dalika anna Muhammad ibn Ahmad ataahu fi shahrin bi mushafin katabahu lahu bi idnihi fa awadahu cheikhu xatta taabat nafsuhu wa qarrat aynuhu أول ما فعل له الشيخ بعد السلام أن دخل ولم يلبث وأتى بدرع سابغ خصيف حسن الصبغ أسود يلمع من صبغ من صبغة السوادين المعروفة ببرنان مطرز من نار بابون خاني ممن محمد بن أحمد dafa dikk sëriñ bi ci benn benn weer andil ko kaamil boo xamante ni bi daf ko ko bindoon sëriñ bee ko ko digaloon ba mu ko ko bindalee andi ko sëriñ bi daal di koy joxo jox ba xolam sedd guy la mu njëkk a def mooy ba ma egsi ba mu nuyoog moom ba mu yëree kaamil ba noppi sëriñ bi dafa daal di jóg dugg ci biir daal di génne dara joo xamante ni ju yaatu ju jot ju fatt ju rafet joo xamante ni ñu ngi ko suuf suuf gu ñuul kukk guy melxati bi ñuy wax palmaan ci wolof nga xam dañ ko ngimmiñal muy séeri muy muy bu rafet bu ñu rafet boo xam ne yéeme na wa qaama bayna yadayhi yuhayyi wa qamiisa al-fami wa yadhak sëriñ bi mu egsi mbu mi joxu ko ko dafa taxaw tiim ko di di lemmi mbu mi di seet baat bi boole koog di ree wa cheikhu Zarruq jaalisun yadxak Zarruq moom it mi ngi toog di ree fa lamma tamma tahayyuhu albasahu iyaahu bi yadihi ba nga xamante ne bii seet na mbuum mi ba mu jekk mu daal di ko koy solal ni ko ko wérit daal di ko koy solal moom sëriñ moo ko solal bi yadihi alkarimati ci loxoom bu tedd ba wa kaana famuhu waasian fa axada lahu ibratan wa dayaqahu ala anuqihi nee na mbuum mi mu fekk muy mbaat boo xam ne mu xam nga baatu dara dafa baaxoo yaatu dafa daal di jël pusa daal di ñaw baat bi ba mu yem ci baat bi. wa balagani annahu lam yanzahu ila an mata rahimahullahu rahmatan wasiatan nee na dégg naa ñu ñi mbub moom yi summiwu ko ba ñu mu fàttali génn àdduna moom lañ ko solaale keroog ba ko sëriñ bi solalee mu wut pousse ñëw ko ba mu ba mu xat ci baat bi lan di summiwaatu ko ba ñu mu génn àdduna wa fi hada alqamis wa xusnihi wa ilbasa hada alwali iyahu bihi على انسراح وضحك بلا طلب ولا تعويض ولا تعريض قبله إشارة إلى حسن ختامه وإسبال ستر الله تعالى الجميل عليه nee na mbub mii nga xam ne moom la ko sëriñ bi solal ak kilifa gu tedd gii ku baax kii ko ko solal boole ko dënn bu ubbi ko ak mbégte ree te ak ak ak sàkku jiituwu ko woon ak gaaral jiituwu ko woon sëriñ bee ko defal ci coobare boppam solal ko ko boppam boole ko ubbi ko dënn ak ree nee na loolu ab junj la ci rafetu mujjug naar bi ab junj la ci suutare suutare sunu borom su yaatu su mu ko solal falamma tma'anna wa nazala baalaga cheikhu fi ikraamihi aadatuhu maahu ila an iltafata bihi ila tasrih أخرج له من الكاغد مصحفا وأمره بكتبه وحد له في أقطاره تسعة عشر وبشره بأنه يكون له حجابا عن الزبانية تسعة عشر nee na ba nga xamante ne bi sol na ko mbubb ma doob na ba noppi nag sëriñ bi daal di jublu nag ci di ko teral jublu ci di ko teral teraanga joo xamante ni ju yaatu la ni mu ko baaxoo defee ak moom fonkoon na ko lool beeg see daf koy teral teraanga yoo xam ne ñëpp dañuy yéemu nekk fa di ko teral fan yooyu ba egg ci nag war koo yeewi daal di koy génneel nag benn feggu génneel ko ci ay kayit daal di ko koy ab natt daal di ko koy jox ne ko nag mu ci bindal kaamil boo xamante ni bii nii lay toll te it bind ya fukki bind ak juróom-ñeent lay doon daal dina ko fukki bind ak juróom-ñeent yooyu bu kaamil ba eggee mooy doon sa kiiraay sa digganteeg fukki sawara fukki malaaka ak juróom-ñeent ya ya nga xam ni ñoo yor sawara ñu di leen wax zabadiya fukki bind ak juróom-ñeent yooyu ma la nattal ci xët wi mooy dox sa digganteeg fukki malaaka yooyu ak juróom-ñeent summa inna Zarruq ista'zanahu li ziyaarati qasrihi Tuuba wa sukaanihi min al-ixwaani wal-awlaadi wa kibaari at-talaamiid wa kuntu ana al-wasiilata baynahumaa falammaa axbartu bihi ash-sheikha fariha bihi gaayatan wa qaala maa kuntu azunnu anna lahu mithla haadha al-i'tinaa' summa azina lahu fadahab wa nazala ala sheikh masamma axi sheikh wa qaama bihi sheikhu jiddan wa marida indahu wa maat rahmatullahi ta'aala alayhi aama talsas nee na Zarruq nag benn bis mu tàggu sëriñ bi ne ko daal dafa bëgg siyaare ji Touba ndax daf koo namm dafa bëgg siyaare ji Touba ak kilifa ya fa dëkk ak sa doom yu baax ya fa nekk ak sa bokk ya ma dem fa daal siyaare ji leen ak siyaare dëkk ba sëriñ ma nee na maa doonoon ki dox seen diggante man la naar bi doon yebal ci sëriñ bi ba ma ñëwee ci sëriñ bi ba wax ko loolu sëriñ bi dafa yéemu lool bëgg lool daal ne man de xaw ma woon ni mbir mu toll na ko noonu sama mbir toll na ko noonu ak bu dëkkub Touba bi daal di koy digal ne ko mën naa dem naar bi daal di ñëw Touba mi ngi wàcc ci sëñ Masamba foofa la nekk sax na fa diir ab ab diir suñu borom dogal mu wopp fa ba fa la faatoo ci sëñ Masamba sëñ Masamba denc ko fii mooy ama talsas suma baada ashhurin raa cheikhu waraqatan maktubata alwajhayni tuharrikuha arriyaahu wasta albayti alladi huwa fihi saata almatar bila saata matarin bila riyaax فقام إليها وأخذها ونظر فيها فإذا هي مكتوبة في خبر مصحف مصحف كان يكتبه للشيخ في أرضهم وأرسله ويعتذر لعدم الإتيان به ويطلب الدعاء الصالح منه nee na ba nga xamante ne naar ba faat na foofu fii ci Touba ab diir nag ginnaaw bi sëriñ bi am ab diir benn bis muy dox nii rek ba mu yàgg mu gis aw këyit wuy laf-lafi ci biir néeg bi jamono la boo xam ne jamonoy taw la te booba ngelaw sax amut te ci biiru néeg la kayit wa di far far far nga xam ne moom rek mooy yëngatu ca kayit ya sëriñ bi daal di koy xool daal di yëkkati kayit yu xool ko ba mu ko xoolee fekk muy kayit bu bàyyi ko woon ci naar boobu di sa ruq kaamil bu mu ko doon bindloo mu bindoon ko ba noppi doon ni an te mënta ñëw mu yónnee ko yónnee gam ko yónnee woon nag tax mu bind lettre ba boole ca di di di di jéggalu sëriñ bi ñàkk gi mu ñàkk mën a ñëw ak di sàkk mu ñaanal ko ñaan gu baax ak faju aajo قال الشيخ فلما قرأتها شرعت له وأمرت من بقرب من العيال أن يقرأ كل منه أربعين من سورة الإخلاص فسرعوا يدعون له فلما أتى الشيخ لباب اللقاء أرسل لي ليريا الورقة وكان لم ير ما في الجانب الآخر فلما أتيته أخذ الورقة فإذا ما في الجانب الثاني مكتوب إلي وازداد تعجبا nee na ba nga xamante ni bii sëriñ bi jàng na kayit wa nag daal di fàttaliku nag mbirum naar ba bu baax daal di digal ñu nekk ci wetam ñëpp ne leen nañ ko ñaanal kenn ku ne ne ñëpp ne leen jàng leen ñeen fukki lixlaas ñu ñaanal ko ko ñëpp jàng ñeen fukki lixlaas ñu ñaanal ko ko ba ñu ko ñaanalee nag ba sëriñ bi jógee jëm si ca ñëw ci fi muy dajeek nit ñi lu fekk nekkumu foofu mu yónnee woolu ma ngir bëgg maa won kayit wi ndekete sunu borom dogal na kayit wi mbir ñaari wet leetarub ñaari wet la genn wet gi sa leetar la bu jëmoon ci man boo xam ne daa bëggoon mu njëkkee ci man ma ma jàng ko ba noppi yóbbu wet gi ci des muy leetar bu sëriñ ma yóbbu ko ci moom suñu borom dogal leetar ba njëkk a jaar ca sëriñ bi mu gisul wetam képp te gisul sama wet mu yónnee mu yónnee wooma fa lamma ataytuhu ba ma ko dikkalee axasal waraqata mu jël kayit wa di ma ko woon faysa may faysan maa fil jaanibi saari maktubun ilayya ndekkete la nekk te geneen wet ga man lañ ko bindoon te mu gisu ko woon wasdaada taajuban nee na sëñ bi gën a yéemu wa kaana muraadul kaatibi nee na bindkat bi li mu ci jublu woon an tasbiqa albarawata la day lettre bi jiitu jiitu si fi man fa akunu waasitatal masxafi ma nekk ku digale ma ma eggaleel ko téere bi ca sëriñ ba wa iqaafi seex ala maktubihi ak wan sëriñ bi li nga xam ne moom la bind li yaalama udrahu ngir mu xam gàntam wa lam yaqdi llahu dalika nee na te yàlla dogalut loolu id sabaqat fi seexi wa dallat anhu li hikmatin ilahiya la sunu borom dogal lettre ba jiitu ci sëriñ ba ginnaaw bu mu riir ko nag ngir xikma ilahiya bu ca ne suma baada zalika topp gannaaw loolu nag bi yëpp a xewee ba sëriñ bi yéemu boo bàyyi axbarana mu xibaar nu ne bi anna zarruqan lamma ataahu almalakaani fi qabrihi lissual ajaabahuma rabbuhu anhu bi hada abdi fansarafa mu ni leen wax nu ninu zarruq mi day ba ñu ko dee dugalee ci bàmmeelam ba ko ñaari malaayika yee jubee ngir bëgg koo laaj saa borom dañu leen dem leen kii sama jaama wàññiku leen ñu daal di wàññiku loolu dara gën a ko yéeme lépp di wane ne rek doole wane loo xam ne lii mën na noo taxa dolli ko passeef mën na noo taxa rafet njort ndax lii lépp day wane mat gi nga xam ne sëriñ bi mat na ko li mu doon wa minha bokk na ci xissa yooyu de ma axbarani bihi axi Saïd ibnu Laylo li ma sama mbokk mu ñuy wax sëriñ Saïd ibnu Laylo mooy sëriñ Saïd Lo bi annahu kaana fi baad al ayaami fi baytihi yaqra fi mushafihi daxwatan sëriñ Saïd Lo nee na ma dafa am bis man la toog ci sama néeg yoor yoor di jàng sama sama sama sama waqaf iz zahara lahu wasaxun kabirun fawqahu multasaqan bi saqf fa lam yatamakkan li qatlihi nee na ma seen benn unk bu nekk ca kaw bu mag mi ngi taxu ci gayet gi aw man munu munu munu ma koo rey fa talaba min allahi an yaatiyahu bi barakati cheikh ma daal di ñaan ci sama borom ne ma ne ko maa ngi lay ñaan ci barkeb sëriñ bi nga wàcceel ma unki bi baaree ko bi sirri xarfi min hazal mushaf daal di ne ko ci ci mbootum ci barkeb mbootum araf bu bokk ci kaamil bi fa wadaa isbahu ala alifin nee na ma teg sama baaraam ci alif ne ko ci barkeb mbuut mii mbuutu araf wi ci barkeb sëriñ Tuubaa mii wàcceel ma unki ba ma rey ko min baadil kalimaat wa rafaahu wa ashaara bihi ila alwasfi ba ma rey ko min baadil kalimaat ورفعه وأشار به إلى الوسخ بنية بنية الظفر به nee na ba ma yëkkatee sama baaraam dama koo joxoñ unku bi maanaam ànd ci yéene mën a jot ci moom bare ko fa tasattara fi lxiini ca saasa rek mu daal di daw daal di barbar daal di dugg ci ci ci ci ci ci mel ne dara da koo laal qaal fa lamma kaana bayna alzohri wal asri ba ma jullee tusbaar toogaat fa ma toogoon wa ana fi majlisi maa ngi ci sama jotaay bi is amti lu mooy rek inqabda wa saqata bayna yadday ma seet seet rek unku bi ne dull ci sama ci sama kanam wa darabtuhu bi alatin ma daal di foofu lu den rek man daal di koy dóor daa daal di koy rey fa qataltuhu ma daal di koy rey fa hamidtu llaha ala ijabati bi barakati cheikh wa ala tadbiri bi abdi bi ma daal di sant yàlla ci wuyu gi ma wuyu ci barkeb Sëriñ Tuubaa mii ak taw maanaam jotloo gi ma jotloo ca saab noonu ba ma am ca li ma bëgg lépp ci barkeb Sëriñ Tuubaa loolu day junj day wane ne ab murid bu dëggal lu mu dogu ci barkeb Sëriñ Tuubaa rek sunu borom fekk ko ci rawatina mu tiim alquran rawatina mu jamono boo xam ne dafa sell jamono bi nga tiim alquran yàlla rek rek rek a nekk ci yow boo dogoo ci barkeb Sëriñ Tuubaa la nga dogu moom bu sox bu tàkka yem ndéem murid bu dëggal la lii firndeel na ko wa minha bokk na ci xissa yooyu nee na maa axbarani bihi siqatu saalihu Muhammadul Kabir ibnu Cheikh Masamba Diop an abihi Masamba Diop nee na li nga xam ni moom la ma nettali ndëgër laay lu baax la ñuy wax sëñ Mouhamad Alkabir doomi Cheikh Massamba Diop na mooy sëñ Moodu Massamba Diop di doomi sëñ Massamba Diop moo ma ko nettali ci baayam Massamba Diop mu ne annahu kaana zaata yawmin jaalisan maa Cheikh Alxadim ne ko am na bis boo xamante ni dafa toog ak Sëriñ Tuuba radiyallahu taala anhu wa bi yadi Cheikh Massamba xaatamun jadidun hasan fa nazaahu min yadihi wa labisa xaatama Cheikh Massamba wa makasa saatan ثم إنه كشف له عما في قلب المريد الشيخ مسامبا من حب خاتمه هو فقال يا مسامبا nee na sëñ Masamba nee na dafa toog ci kanamu sëriñ bi fekk mi ngi takk jaaro xaalis bu rafet sëriñ bi it mi ngi takkub jaaro sëñ bi tey boo toog ba mu yàgg sëriñ bi daal di rocc ci jaaro bi ci loxol sëñ Masamba Diop daal di koy nas ci baaraam nee na daal di dindi ba ab jaaroom nee na sunu borom daal di koy wuñ nee na sunu borom sëñ Masamba Diop nee na sunu borom daal di koy won li ci sama xol ci saasi ndax booba jaar bi bëgg nga xam ne bëgg naa ko ko yéeme na nee na sunu borom daal di koy won li ci sama xol ci saasi mu daal di ne ma yaa Masamba xaatamuka hada ahsan walakin xaatami hada lahu asrarun tuxassu bihi sa xaatam yi di sa jaaru bii de moo gën a rafet waaye sama jaaru bii am nañ mbóot yoo xam ne moom la ko sunu borom jagleel benn fekk ko ci wa min baadiha bokk na ci mbi mbóot yooyu le annahu yudhiru alxafaaya almaxfiyaat bokk na ci mbóot yooyu le sama jaaro bi day feeñal mbóot yu ñu nëbbu summa innahu daxala alayhi baadu jawaarihi wa waqafat qurbahu wa qaalat fulanun yaqulu kada nee na ci bi ñuy waxee ab gone gu jigéen daal di dugg daal di ne diw de nee na nangam fa qaala lahu cheikhu imshi sëñ bi ne ko doxal fa abat mu bañ taxaw rek fa ramaha cheikhu bi ne alin kaanat bi janibihi fa harabat sëñ bi daal di fab dàll yu nekkoon ci wetam sànni ko ko mu daal di daw وقام الشيخ الى النعل مدادي سرين بلادي جوك وتدال وفي اذا هي وقع على حفرة حفرتها الجارية وملأتها من فضة الشيخ شرقة فاخرجها وحملها يضحك الى الشيخ مسامبا ويقول له كنت اخبرتك الان وقد عاينته ليس الخبر كالمعاينة لا بسرين بجوك وتدال دادي اج فك دال ويتاب بنا تيمبخ moo xamante ni nii gone gu jigéen googee dafa sàccoon ci xaalisu sëriñ bi suul ko fa dal wa daal di daal di ca dal ca pax ma sëriñ bi daal di ñëw daal di sulli pax ma fab xaalis ba waaxu si di wut si suñ Masamba Diop di ree ne ko Masamba lu ma la waxoon léegi li ma la waxoon gis nga ko nii wax naa dégg moom dafa naa bokkul ak gis faalam yaa Masamba inna aqwaali wa afaali la tasaabu baatilan ne ko Masamba maa ngi lay xamal ni samay wax ak samay jëf lenn du ci dem ci neen wala taxlaw min faidatin mufidatin te it samay wax ak samay jëf yëpp yam du ci nekk lu ne njëriñ lu am njëriñ a nga ca ama tara ila ramyi lwasifati binnaali maa kunta tazunnu anna shay'an tahtahu hakaza ma lam tara ni ko gis nga bi may sànni ngoone gi dàll wi day boobu day yaakaaroon ni yaakaaroon ni daraa ngi ci li nga gisul lépp nag noonu la mel lépp sama sama lépp yi noonu la mel lu mu ci doon lu ne am mbóota nga ca biir sama dara neenu wa minha bokk na ca ma axbara bihi yowma wafaati xalilina xalil alqasaid alqasaid bun ibni talib algaraki algaragi algannaari bokk na ci li nga xam ni nettali na ko bis ba nga xam ni sunu mbokk ma sunu xarit ba jàngkatu xaside ba ñu daal di ko wax buuna mu dëkkoon garag ca gànnaar buuna faal mooma nga xam ne moo doon jàngal sëriñ ba xaside nee na la mu nu nettali min anna allaha tabaraka wa taala aataahu min al ujuri ma yafrahu biha ahlu tilka almaqabir rijaluhum wa nisaauhum farax faraxan lam yataqaddam lahum wala yanqati anhum baadu bisababi xudumihi ilayhim كفره قوم قدم عليهم ضيف كري- كريم هيئ له من انواع القرى قرى ما لا يحصى اترون انه وعده وهو هو الذي يفرح نانا مدادي وخني بونا مي دي سان بروم بيغلو نكو دفال جوخ نكو تي مبك لو خامتeni li amul app lo xamanteni li mbolem ñamu fekk ci bammel yoyé ci barab yoyé ci ay goor ak jigen ñepp dañu ci jëriñ ndig yo xamanteni amuñ ko won wafu buuna ñëwagut te bu fa buuna ñëwé lañ ko am te dutu ñu taggo tek mom mu ne ko mi ngi mel ne aw nit ñoo xamante ni gan gu tedd dafaa ñëw ñu di ko teral di ko defal xeeti berndeel yi ne ndax defe nga ni berndeel yooyu gan nga rek cee jëriñu ñu kaa déedéet dana yaatu muy noonu lemel boo ne noonu lemel ci ñam fekki la mu fa yóbbu ñoom ñëpp cee jëriñu te duutu dog waa xaraja lahu qamisan abyad daal di koy daal di génne mbubu mu weex wa axbara anna rasulallahi salallahu alayhi wa sallam huwa alladi kasaahu iyaw daal dina yóbbu ko sànge ko ko rasulullahi salallahu alayhi wa sallam même daan tagg moo ko ko sànge moo ko ko jox وبأنه سأل ربه عن ذلك هل هو عام يعم من هنالك أم هو خاص بعيالي فقال تعالى في جوابه وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نينا بلول أمي من لاج سما برم نكو ndég moomu buuna di yóbbaale foofee ndax ñam fa fekk ñëpp ak sama am sama njaboot ga rekk sunu borom nee na tontuma ci laaye jooju la wayna lakum fi lanaami la ibratan nasqikum ma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saayigan li shaaribina xam ngeen lu leen doy ku waar ci jur gi ndax maa ngi leen di maa ngi leen di mandal ci li bàyyi ko ci seen biir muy génn ci diggante nefere ak garab te nekk soo mu weex tal moo xamante ni bii day leer nañ yaani lu mu jubli ci loolu annahu xaasun bi iyaalihi alladi alladina haajaru ilayhi min biladin shatta li wajhi llahi wa makasu maahu ila an tuufu nee na moo li mu ci jublu mooy ne ko xamal ke na ko sa njaboot ga képp nga xam ni ñoo jóge woon fu ne ñoo wuyu si la fii ñooñee ñu dem ci leen foofee ñooñee rek laa wax mbooleem ku ca bokk mbuuna daal da sembik ma nga ma ma nga nekkee woon mbuuna dana la indi le waatal mu ca dolli ko moo xamante ni bi amu ko woon te du too tàgga moom mu wax leen ne anna allah tabaraka wa taala yatatabauhum min bayni muxaalitihim wa yuxrijuhum kama axraja allabana alxaalisa min bayni farsin wa damin ne ko sunu borom nañ leen toppatoo di leen génne di leen jëriñ bàyyi ña ca des comme ni nga xam ne ni lay génneem soow mu sell weex tal ci diggante dara teg nefere te lu tax dara bi mu jote dara wa man alima ma hunalika min al ixtilaaf istaadaba kalaama cheikh nee na bala ngaa xam waxi sëriñ bi ni mu neexee ak ni nga ko mën a déggee da nga doon xam la nekkoon foofee ci ak jaxasoo ndax day wastaazama wastaazama hadihi al karamata nee na boo ko defee da ngaa man na ko waaw ci ngay ci ngay xamee neexaayu waxi sëriñ bi ci ngay réyale karama bi nga xamante ni moo am ci lii tam li anna saxee zaaka fii jurbel ngir jamono bi sëriñ bi wax loolu ma ngi ci njaareem wal mahallu mahallu kufrin te barab ba booba bi murid yi rek fa da ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo fa di ñoo fa di jullit barabu bi yépp ki kéefër la woon wal awaamu awaamul wabaay te at yooyee ati mbas la wal xukkaamu nasara ña yoroon at nit ña boobaay nasaraan lañu فحصر المسلمين والكفار في بقعة واحدة مطعمهم وشرابهم واحد والموت يحصدهم كالكلا dañoo am tubaab yi dañoo defoon benn wurbal rek boo xam ni peste ba booba jamonoy peste ba la bopp ju ju bon moo fa xewoon koo xamante ni ki nga xam ne daj na daj na daj na daj na daj na réew mépp booba koo xamante ni ki yopp jëlaal na rek dañu lay fab dugal ci wurbal boobee nga xam ni yéefar yi ak jullit yi lañ fa doon jaxase te itam déegi déegi booba mi ngi leen di mu ngi mu set mbooloo mu bare bare ma moom faatu ca te ñu faatu it dañuy daal di boole ñëpp rek dañoo gasoon mel pax mu mag moo xamante ni nii ñu faatu ci biir urmal bi rek ci ñuy peste bi jàpp bo ma gi dañuy daal di boole wat ñëpp rek daal di dugal ci biir daal di cay sotti suuf bàyyi la des ca pax ma ñu ne ñu faatu ci suba bi ñu defaat te defaat noonu ba fees ñu suul leen kon ngeen xam ni ay jullit ak yéefar lañ ci doon boole kon moo boo xamante ni bii sunu borom noonu la doxalee seppi leen benn benn jëriñ leen bàyyi faña ca des loolu kiimaan la goo xamante ni bii kiimaan mënu ko raw nee na wal mawtu yaxsuduhum kalkala yaajuzu lmuwakkaluuna an dafnihim wa adlihim kama yambaxi ñi nga xam ne ñoo leen yoro woon mënuñ leen a beraata mënuñ leen a suul bal ya lam yahtamu bihi ñi teewuñ sax jën leen a beraata way na ma yaxfiruuna xafiran amiqan waasian rek dañoo gas rek pax mu yaatu mu xóot moo xamante ni ni yuidduunahu lil mawta فربما يموت في يوم نحو عشرة ما ما بين برد وفاجر wax mu mag moo xam nañ ko pare woon rek pour ñuy faatu léeg-léeg benn bis lu mat fukk faatu ñoo xam ne ci diggante yéefar ak jullit fa yarbutuuna alxibaala fi arjuli almawta wa yajru wa yajruuna ila alxafir fa yarmuuna bihi suma yaxsuna alayhim turaaba qalilan te boobay yooyee jamono peste ba dafa garaawul woppi tabaay dañ ko ragal ku ko ku ku ku ku ku ku mu dal dañ lay ber ku ci faatu kenn du la laal buum la ñuy dañuy takk rek buum ci sa tànk diri daal di dugal ci pax mi daal di daal di daal di sotti suuf. ربما لا يتوارون ثم يتركون بقية الحفير إلى غد ثم كذلك حتى يمتلئ الغار بعد أيام من جيف الأبرار والفجار ودام هذا الحال أعواما انظر رحمك رحمك الله وتأمل تزدد يقينا واعتقادا في أولياء الله تعالى neena boo xoolee lii jaxasoo gu metti googee nga xam ne moom leen doon jaxase leen te duñ leen tàggale te suñu borom won ka ne ko mbooleem ña nga fa am danaa leen seppi ci seen biir ni may seppee am soow ci diggante deret ak nefere teral leen ni may sama terale am soow ci diggante deret ak nefere te duñ joree dara danaa leen seppee noonu ne nga daal di xam ni lii dana la dolli ak wóolu dana la dolli ak pas-pas ci Serigne Touba dana la dolli ak pas-pas ci nit ñu baax ñi jaalana jaalana allahu mimman xasana atiqadahum wa zanonahum fihim yal nañu yàlla boole ci ñi rafetal seen pas-pas rafetal seen njort ci ñoom xata yalqawhu gayra munkirina wala mutaaridina alayhim ba nu dajeeg ñoom te duñu linkaat ci ñoom dara duñu gaaral ci ñoom dara wa yuayidu hadihi alkaramata ma qaala fi axina Muhammad alxayr addaymaani nee na karaama bi itam dana ko dëgëral li sëriñ bi wax ci sunu mbokk mi ñu wax Muhammad alxayr addaymaani Muhammad rahmatullahi taala alayhi summa inna lamma rajana min dafnihi ba nga xamante ni faatuna moom Muhammad alxayr sëriñ bi yebal nanu dem denc ko ba nga xamante ne denc nañ ko ba dellu saarani sayxu an jiraanihi fi lmaqabir sëriñ bi laaj ma ne ma ñu mu dendal foofee ca sëg ya fa qultu lahu mafatim wal basir wal muxtaar diaane ma ne ko ma ne ko ko ñuy wax sëñ mafatim ak sëñ basiru sise ak sëñ muxtaar diaane ñooñu la dendal foofee fastaxsana dalika sëriñ bi rafetlu loola bég ca lool wa saala rabbahu an alihim al an nee daal di wëlbatiku nee na ma wël ma nee na sëriñ bi nee na ma wëlbatiku laaj sama borom sama njaboot googee dajale foofee fa ata ala jawaabihi nuurun ala nuurin yahdi llahu li nuurihi man yasha sama borom ne ma leer la ci kaw leer sunu borom mooy gëndi ko ko soog jëma ci leeram wa fataha al mushafa wa araani al jawaaba suñu balaa mi neen sëriñ bi daal di daa daa di daa di ubbi kaamil bi ci saasi daal di may wan tontu la ne ma bi ma laajee sama borom seen mbir lii la ma wax nuurun ala nuur nuur leer ga leer la gu fekki ay leer fa hamidtullaha wa shakartuhu nee na ma sant yàlla wa kaana wafaatuhu laylatal jumaa sabia jumaada loola ama masas nee na faatu naar boobu demee nekk guddik àjjuma di juróom-ñaari fan ci jumaada loola di atum masas ci film mubarakati Ndiourbel ci buqaat yooyu pàkk bi ñuy wax buqaatu mubarakati Ndiourbel ikhtisaar.
jërëjëf sëñ Habib Diop kon day mel ni mën nañoo déglu ay xasida tuuti doro wéer laat liggéey bi. te itam li nga xam ne jot nañ ko dégg muy lu am solo loo xam ni dina dolli ak xam ci sëriñ bi dolli bëgg ci sëriñ bi dolli gën a wóolu ci sëriñ bi ndax ñi nga xam ne jot nañ fee tudd ñëpp doon ay taalibe sëriñ bi wuy ji seen borom na leen suñu borom teeroo di loo xam ne ñëpp dégg nañ ko ku mel ni naar bi nga xam ne moom la sëriñ bi tudd woon Zarruq doon ko bindloo mu wàcc liggéey sëriñ bi laaj ay mbiram suñu borom suñu borom xamal na ko sëriñ bi di gëstu ay mbiram. wane ni ñaari malaayka yi biñ dikkee ba war koo laaj sunu borom moo leen xamal ni leen kii sama jaam la sunu borom moo ko tontul ak naar bi nga xam ne moo di bonafal di naar bi nga xam ne jàngkatub xasida la woon ba mu wujjee sunu borom sëriñ bi gëstu ay mbiram gis ni moom fa mu jëm yu baaleel na fa ñu fay fekkee ay teraanga yoo xam ne duñ tàggoo ak moom ba mukk te loolu lépp la leen ko may di yaakaar sëriñ bi àdduna ak teraanga àllaaxira joo xam ne ñun ñu yaakaar sëriñ bi ñëpp suñu xel dina gën a dal ci loolu kon ñu bàyyi suñu technicien Mouhamed Lamine Diop mu dégtal ñu ay xasida ba ci kanam. Diop ñu ngi lay sant bu baax a baax ci xas yi ñu doon déglu léegi di dollee sant sëñ Habib Diop ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom la ñuy indil saa su nekk di sant itam mbokki déglukat yi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen xam ne kon yéen a ànd ak seen émission taarixul islam ñoo dalal sëñ Habib Diop ci téere bi nga xam ne moo di al minahul miskiya bi nga xam ne ci kéemtaani sëriñ bi la jëm kon ñu jox sëriñ Habib Diop mu wéyale liggéey bi.
waaw moom di buuna moomu xisaam man nga cee dégg man nga cee jëriñoo ne njàngum xasida beneen daraja la bu tege ci kaw murid bi boo xamante ni bii ku ko ci fekkul moo la ko féetee kaw ndax ñoo ñaa nga xam ne ñoom la fekk ci barab ya te yóbbaale leen mbég moomee ñu Sëriñ Tuubaa yar lañ ñu fa yóbbaale mbég yu dul jeex lañ waaye nee nañ mbég ma leen buuna yóbbaaleel amuñu ko woon ba fa buuna demagul te duutuñu tàggooteeg moom te la ko may buuna mooy njàngum xasida kon loolu war naa soññ kenn ku nekk ci fonk xasida ak njàngum xasida ku mu ca fekkoon ku ne nga dolli caa góorgóorlu kum ca fekkul woon nga sóobu ca xam ne njàngum xasida day dana may murit loo xamante ni ku ko ca fekkul du ko am loolu rek doy na ci firnde wa minha bokk na ci nettali yooyu le xew-xew yooyu le maa akbarani bihi radiallahu taala anhu laylat alhaadi wal ishrina min shawali masas li nga xam ne moom la ma sëriñ bi nettalil boppam ci guddug fu ñaar fukki fan ak benn ci koritew masas bi annahu baada salaat al asr كان يقرأ آية واتقوا الله ويعلمكم الله بإدامة ولا يقدر على تركها قهرا من الله تبارك وتعالى إلى الغروب neena guddi googu leen ngoonu takkusaanu bis boobu le daa ginnaaw bu mu jullee takkusaan dafa nekk di jàng aaya ba wattaqullah wa yuallimukumullah nee na ma di ko baamu di ko baamu waat rek te teyituma sax ko mënatuma koo ba mel ne sunu borom moo ma ci not ba ba mu sax ci sama làmmiñ rek ma di ko wax ma di ko wax ilal xurub ba jant bi so falamma kaana baada salaati almaghrib ba nga xamante ne julli nañ timis ba noppi qila lahu la budda laka min taalimin ajibin ñu ne moom munoo ñàkk a xamle faw nga xamle xamle bu yéeme tawajjaha ila almakan alfulani daal dina ko wutil barab sàngam ci biir kër gi wa kaana almakanu fi aqsa daarihi te barab booba ma ngi ci fa gën a sori ci kër gi garban ca sow ca sowu kër gi bi maatiran an innaasi dafa beru foofu nga xam ne kenn du fa dem fa tawajjaha sëriñ bi daal di wuti foofa wa wasala ba mu fa yeggee wa qila lahu nam ala dalika alfiras ñu ne ko tëddal ci lal bi qaala cheikhu wa maa wasala jambi xatta rufiatu min fawqihi nee na ba ma ne ñuun sama sama wet jutlu egg ci lal bi ba loolu dañ maa yëkkati ñu ne ma cas fa ka annama rufiatu ala araqi xaytin wa aw araqi ud mel na liñ ma yëkkatee daal buum nga gën a sew la wëñ nga gën a sew la wala bant bu sew a sew lañ ma yëkkatee wantaha rafa ila makanin laa yaalamuhu illa allah yëkkati nañ ma ba ne ba egg ci barab boo xam ne kenn xamu ko ku dul yàlla wa kuntu ara ma wa kuntu ara ma ala wajhi al ard nee na booba maa ngi gis tiim jëmmi suuf si ni di ko gis wa axbara bi annahu samia al azana min hunalika nee na foofee maa ngi fay dégg bi ñu noddee summa taaxarati salaatu tilka laylata hatta tala al qamar nee na guddi googu yéex nañu julli ba ba ba ba ba ba weer wu fenk xam nga xam nga nag guddi ñaar fukk ak benn weer bi dana guddee fekk kon guddee kon gannaaw yéex nañoo julli ba weer wa fekk kon guddee nañoo julli su ma innahu axbara baada ma saala an muntahaahu uxbira baada ma saala an muntahaahu fa qila lahu baynaka wa bayna jirmi samaai isruuna diraan nee na ba ma ne fii ma nekk fan la ñu ne ko sa digganteeg asa jëmmi asamaan di ñaar fukki xasaba fi dox hada ma qaala fi laamati nee na loolu la wax ca mbooloo ma waaye summa axbara wax na ñeneen li baadal xawaas bi annahu samaniyata asru am na ñeneen ñu wéetal ñoo xam ne moom leen koy nettali juróom-ñetti xasab la leen wax qultu mani wa hada yadullu ala annahu xaataba aljamia ala qadri uqulihim nee na ma wax ni lii day tegtale ne dafa def ni yonente bi salaa sallam daan def yonente bi ay waxam daana wuuta la ko daan def mooy ñu mu toogal ñu ne day wax ak ñoom la tolloog ñoom wa illa su fekkee du loolu kon fa mislu hadihi l waqa laa yaxloo min asrarin yadinnu biha ahluha an gayri ahliha ba tey xew-xew bu mel nii itam faw mu am ay mbóot yoo xamante ni bii borom dana ca nay ba du ko wax looloo tax muy yem ak ñoom foofu bu wéet ak ñi nga xam ne ñoo weesu ñooña jàll ak ñoom saxaaba la yonente bi salaa sallam noonu la daan waxtaanee saxaaba ya lam daan wax ca digg mbooloo ma bokkul ak bu wuuteeg bu wuuteeg ñennat ñi bokkul ak bu ca wuuteeg ñeneen benn bennat yoo xam ne dana leen wax loo xam ne duñ ko ñemee nettali mukk sëriñ bi itam ay xisaam yépp noonu la meloon mu ne layta seeri ma xaala li xaasati bi xaasa ak neexoon ma xam la mu wax ña ña maanaam ña la mu wax mooy ñi gën a jege jege jege waaw leen di wax du bokk dana dana weesu foofu wa mislu zalika qawluhu sallallahu alayhi wa sallam laylatul israa mel na noonu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam guddi rañaan ma bi annahu zahaba ila bayt almuqaddas ila bayt almaqdis suma qaala li qawmin ila shadrati almuntaha suma ila ma waraahu li kulli firqatin maqalun yunasibuha nee ñi wax leen ne dem naa baytul maqdis fa lay mag ñoom ñenn ñi laay gis ne dem naa ba ba sidratul muntaha ñenn ñi la wax ne dem naa ba weesu foofa firqa bu muy waxal bu ne daal la la tolloog ñoom la la la la wax ak ñoom ñoom yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan defee ثم قال رضي الله تعالى عنه أخبرت بعد ذلك بأن ما رفعت عليه ليس بحبل ولا بعود إن هو إلا القدرة nee na ginnaaw bi ñu nett ñu wax ma ne ma li ñu lay yëkkatee du buum du bant li nga foog li ñu lay yëkkatee du dara lu muy kattanug sunu borom su ma talaa topp mu jàng awalam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi sama maa yumsikuhunna illa allah wala alquran wax xanaa gis ñu yi naaw ci kaw jaww ji nga xam ne dañ leen a tàggat ñu naaw ci kaw jaww ji dara teewu leen fu dul yàlla kattan sunu borom googee nga xam ne mooy tey yee naa ca kaw jaww ji moom lañ lay yëkkatee qultu ma ni wa laalla hada min dalika taalim alajib almawud bihi nee naam lii man xëy na lii bokk ci xam li gu yéeme googu nga xamante ne moom la diggee woon wa kafa bihi ajaban te nee na loolu doy na kiimaan wa taqaddamat mislu hadihi alwaqia nee na jiitu na beneen xew-xew bu mel nii fi laylati alula min ihda aljumaada yéeni ci guddi gu njëkk ja ci benn ci ñaari weeri jumaada wa gaalibu zanni annaha saaniyatun li gën a not ci sama njort moo koy naatable waaye li gën a not ci sama njort mooy jumaada saaniya bu mu jubala fi tilka sana caat moomule xaasiluha anna cheikh radiallahu taala anhu taaxara an salaati subhi fi tilka laylati hatta kaadat shamsu tatla nee na sëriñ bi dafa yéex a julli si suba ba jant bi di bëgg a fenk faxtalafat aljamaatu ma bayna musallin wa muntadir mbooloo mi daal di wuute ñee naan nañ julli ñee naan nañ nekk wa taalibi salaati jamaatin ñeena na am ko jiite ñu julli bi imaamin axar ci beneen na am ko jiite ñu julli wa naahin an zalika ñee di tere loolu déedéet nañ fa baynama hum fi zalika diggante bañ nekk ci werante woo ak nañ def ni nañ def ni is aqbala cheikhu am te lu ñu seen seen bi muy ñëw wa uqimati salaatu ñu daal di taxawal julli ga fa lamma sallama ba mu salmalee hamida allah wa amara bihi aljamaata fa hamidoo ba mu salmalee daa sant yàlla daal di digal mbooloo mi leen sant nañ la ñoom ñëpp ñu sant wa xaala mu ni leen إن سبب تأخره أن ربه وعده برفع مكاتيبه إلى العرش والكرسي من عام أسس إلى مسس لأن اللي ما تخيخ جله sama borom daf maa digoon ne ma sa mboolem sa taalif yi nga bind li ko tàmbalee ci ama asas muy at man jógee Mbàkke Kajoor masin moo rante sali demee ba ci ama masas nee na diggante boobu lépp li nga fi bind dañ ko war a yëkkati yóbbu ko arsa kursi yi wa annahu yugayibu waxta rafiha ila tamaam tey jamono buñ ko yëkkati dañ lay yóbbu ba ba ba yëkkati gi mat fa lamma kaana baada lasa ilbarihata bi ngeen gisee nu ma jiite gee bii ba noppi nag suria fi dalika boobee lañ tàmbali yëkkati ga fa ma tamma illa waana xodoor yi yëkkati ga jeexut nurul jamono bii ma egsee fi yéen lay lay sogo mat loolu tax ma yéexe ñëw parce que wa minha bokk na ci ne xissa yooyu lay aydan ma axbara bihi munasiban li hadihi alwaqaa loo xam ne xibaar nañu ko mu dëppoog xew-xew bi le الإسراء الإسرائيلية خوخ بريان بالسوالية وذلك أنه رضي الله تعالى عنه تأخر عن صلاة العشاء ليلة الأربعاء ثالث عصر سفر أمسس dafa yéex a julli si gée guddik àllarba fukki fan ak ñett ci weeru amsas ñeent fukk ak benn ila sulus al awal ba sulus bi mu njëkk ba ñëw illa illa nisfa saa da nga xam ne sulus bi njëkk bi daal daa genn wàllu waxtu moo ko tey jeex maanaam daal genn wàllu waxtu moo tey muxtaaru gée bi jeex baada intizaar aljamaati kasiran ginnaaw boo xamante ni mbooloo bi néggandiku nañ lu bari wa azanoo marratayn ñu nodd ñaari yoon wa bu ayda saan yi ba ñu daanee leen noddu ñaareel ga nag aqbala musra am sëriñ bi jubli si di waaxu si wa qimati salaatu ñu taxawal julli ga summa lamma faraga minha ba nga xamante ne noppi na ci julli googu aqaama burhatan fi mihrabihi sax na ab diir ca mihrab ba yanduru fi baad alxasaid di xool yenn di ay di xool ci yenn xasidaam yi summa fataha baadu wa daa ilayhi ba mu jógee nag ba dem ci biir mu daal di ubbi daal di woote fattamaau alayhi ka aadatihi mbooloo mi daje si ni ñu ko baaxoo defee fa madda lawhan min tilka alwaaxi mu daal di tàllal benn benn benn feggu ci feggu yooyu nga xam ne moom la bind xasida yi wa kaanat alxasaidu yuktabu lahu fi lawhin min kaagat yulsaq baaduha bi baadin xata yagluza gilaza lawxi uud suma yukaffu xawaafihi bi jildin masbuugin sibgan muxkaman ma yuxattu wa yuzaxrafu ka axsani ma yakunu shay suma yuktabu alayhi ma wasia min qasaidihi nee na boobee yooyu jamono xasida yi ñu ngi ko ni ñu ko daan bind ci fegg yu tal yoo xam ni dañuy tegale aw fe ay feggu ba mu ba mu kol ko ba mu tal ba mu mel yor talaayu àlluwa te àlluway bant ñu daal di ñu daal di koy ëwee ombe ombe der kulóor ko ba nga xamante ne day rafet kol ko kol ba bu xerañ bu rafet nga bind ko nga xam ne bu ñu ko bindee ba bàyyi ko day rafet rafetaay boo xam ne day yéemu ca lañ daan bind xasida yi booba wa kaana fi ihda sahifatay lawh al mamdud benn ci weti xasida yooyu nga xam fekk nga xam tàll na ko genn wet gi xasida gi nga xam ne moo ci ne xasidatun murattabatun ala urufi muhiya safarul xuruj muhiya safarul xuruj xasida gi ñu ko tënki moo nekk ca genn wet ga fa amara bi qiraatiha daal di koy tàllal am am ku mu digal ne ko jàng ko wa qaala tajiduna fiha ma yunabiukum an sababi taaxuri salaat shahidan ala ma sa uxbirukum bihi baada alqiraa mu ni ko jàngal jàng ko bu ñu ko jàngee bu ngeen ko jàngee na ngeen ko déglu bu ngeen ko déglu da ngeen ci fekk lu leen yee ci lii sababu sama yéex a julli bu ko defee dana doon seere seere ci li ma leen bëgg a wax bu njàng bi noppee fastaftaha alqaari'u jàngkat ba tàmbali ila an balaga arfa alxaa'i ba mu yegg ci xarafu xaawa wa baytuhu bayit ba mooy xidmatu xayri alaalamina qad maxat an yi dawaayi alxisaabi fam maxat fastakaffahu mu doy mu ne ko doy na fan kaffa mu taxaw wa amarahu bilwajhi saani mu daal ne ko wëlbatil wet gi tas nga jàng wa kaana fihi qasidatun murattabatun ala hurufin taaba safaru lxaraaj genn wene ga ca des xasida gu ñu tënke taaba safaru lxaraaj moo ca ne fa taftaha alqaari jàngkat ba tàmbali wa balaga arfa albaa'i ba ma yegg ci arafu baa wa baytuhu baytoo mooy baana li kulli man lahu saada anna annabi li li qaada xalqa alaada nee na fastawqafahu mu taxaw la woo ko fa waqafa mu taxaw wa qaala innahu baada salaati almaghrib mu ne ginnaaw bu ñu jullee timis umira bi tawajjuhi ila albayt alfulaani dañ maa digal ma wuti ci néeg sàngam fa tawajjaha nee na mu wuti fa wa umira bil istiraahati ñu ni kon tol tëddal foofu noppalu wa ma tamma lahu littikaaw nee na soonuwul rek xataa xuyiba an xas an hissihi ba ñu maanaam mu mel ne lu xam moo yoo xam ne loo xam ne yëgatu nekkatu fi daal nee na ba ma soonoo daal xamatuma fu ma ne nahwa tilka layla mu mel ne guddi googee ne ma qaala illa anna ala inna hadihi laylata lam yabqa li aaiqun wala xijabun bal xasala litisali bi xawaariq al ambiya al mursalin dalika fadlullah yuti man yasaw wallahu dul fadli al azim mu ne guddi googee nag ca lañ ma xame ni deseetuma benn gàllankoor deseetuma benn kiiraay àgg naa léegi ci xawaariq al ambiya wal mursalin yi egg naa ca la ma ca la ma la la la mboolem lu ñu ci amoon jot naa ca loolu nag ngëneelul yàlla loo xam ne moo ko moo moo ko koy moo koy jox ku ko neex te yàlla mooy borom ngëneel yi. loolu itam di lu yéeme loo xam ne mënees na cee xamee lu bari defe naa dal kuy déglu ku ne li ngay dégg defe naa du jar commentaire yaakaar naa daal li nga ciy déggee da nga ci mën a xamee loola doy loo xamante ne lii dafa naa mën naa dëgëral pasteefu taalibe te borom taalibe te borom téere bi li ma leen wax rek lu dëgëral pasteefu taalibe bi ak lu ko soññi rek la ci jublu wa minha bokk na ca waqad taqaddama qabla hadihi leyla subhun taaxarat salaatuhu ila qurbi tuluin jiitu woon na ndikus guddi gi suba goo xamante ni gii dafa yéex a julli si ba jant bi bëgg a fenk fa lamma uddiyati salaatu axbara bi anna maa xabasahu ba nga xamante ni ñëw na ba ñu julli julli ga axbara bi anna maa xabasahu an salaati ila dalika alwaqt wa sahibu alfiya muhammad ibn malik ataahu zairan li wajhillahi فلما سأل عن حقيقة باعثه إلى زيارته قيل أنه نبهه بيت رآه في بعض القصائد بليغ تضمن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم genn guddi goo xam ne suba goo xam ne dafa yéex a julli si ba jant bi bëgg a fenk ba mu ñëwee bañ julli ba noppi mu ne leen ni li nga xam ne moo ma téye woon ba ma yéex a ñëw kat moo di kooku ñuy wax Muhammad ibnu Malik nga xam ne mooy borom Alfiyatu ibnu Malik muy borom am téereb naxaw bu siiw boobu nga xam ne moom la ñëpp di jàng te nit yàlla koo xamante ni ko am solo nee na Muhammad ibn Malik moomu moo ñëwoon doon na siyaara si ne daf may siyaara si ngir jëmmi suñu borom ba ma ko laajee lan mooy dëgg-dëggul maanaam lu ko xiir si ñëw di ma siyaara si mu wax ni bayit woo xam ne da koo gis ci xasida yi muy bayit wu jot wu yaatu woo xamante ni wi da ko ca gis da ma yéem ko bayit wal lamboo laa ilaa maanaam laa ilaa illallah muhammad rasulullah lépp ñu doxañ ko ci biir loolu moo ko yéem a tax mu ne dana ñëw siyaara si ki ko wax waxwa baytu bayit wa moo di xayru jamii alaalamina ahmadu qaddamahu ala albaraya samadu fa lamma raahu taxarraka minhu ma kaana saakinan wa dalika sirru qawlihi ba mu gisee bayit woowu nag nee na li yëngutu li daloon ci moom yëngutu loolu mooy sakara soo xam damay wax ne mallatuhu sifatahu tabliga wa qaada li munabbihan baliga loolu mooy li nga xam ne mooy moom la Ibnu Malik wax ni moo koy yéem ndax dafa gis bayit wi ñu dëxañ ci mbuuti laa ilaha illallah muhammad rasulullah yow ni mu réyee lépp ñu dëxañ ko ci wenn bayit wi loolu yéem ko moo yëngal li daloon ci moom moo tax mu ni dana ñëw siyaara sëriñ sëriñ bi ne loolu yi kat mooy li nga xam ne moo ma téye woon moo ma tax a yéex a julli te fekk na booba day Muhammad ibnu Malik moomu ca di ñu njëkk ñi rek kenn xamul kañ la faatu woon motul junniyaat dégra ay ay téeméeri at yu bëree bëri mat na ko wa minha bokk na ci qudoomu ahli badrin alayhi fii daarihi miraaran wa takraaran bokk na ci xista yu yéeme yooyu le dikku ahli badrin dikk ci këram ay yoon yi yoon yi yoon zakara fi baad layaali safari amsas nettali na ci benn guddi ci guddi weeru safaru weeru weeru weeru safaru amsas ñeent ñeent fukk ak benn annahu ما كاد ينام تلك الليلة لكثرة ورود أهل بدر عليهم رضوان الله تعالى guddi googu xawuta mën a noppalu xawuta mën a xaw a forbët sax ngir dikki dikkee gu ahlu badrin di baagante ci moom ci guddi googu le ربما يقال له تلك توجه ربما يقال له تلك الليلة توجه إلى المكان الفلاني فتوجه إليه فيأتونه هنالك ثم يقال له ينتقل الى المكان الفلاني فينتقل ثم ياتونه ثم ياتونه ثم كذلك الى ما شاء الله نانا دنج كو سونال ديك جي ديك ديك جي باغا خامن لاي لا ñu ko demal barab sangam mu defé na bu démé na nopplu bu démé ñu fekkat ko fa لاي لا ñu ko demal barab sangam mu dem fofu ñu fekkat ko fa non la sax ci noni bala soop sunu borom ci guddi wa tilkal wurudatu tilkal laylatu nena rot roté gogo ñu doon rot roté fi mom ci guddi gogu istibsaran bi qawli fihim nena bik gi ñu bik dégg gi ma waxoon ci ñoom musiran bil qaafaati althalathati wa bil jimi wal yaai fi bushari ila adadihim sahihi al mashhur bayt wu ma waxoon ci ci biir xasida ci ñoom ñu gis bayt wa fekk bayt wa junj naa ci mbóot yi suñu badarom def ci ñoom junj ci seenub junj ñaane seenub seenub lim ñetti xaafa ngi ci mooy ñetti téeméer ya ak jiim gi nga xam ne moo nekk ci jaawo muy fu ma muy ñett ya ak yaa gi nekk ci bi bu sar yi muy fukki yaag ñett ñett téeméer ak fukk ak ñett ma junj ko ci biir bayt wi def ci si ci seen sekkere lu bari loolee nag bañ ko gisee moo leen moo leen moo leen moo leen moo leen cokk nag ba tëlatun ba ma man waxtu wu nekk rek ñuy dareet dareet di fi man ngir bëkki bayt woowu la bayt woo moo di qaddamani quduumu man qad jaa'u bi bu sari wa xoqiqa arrajaa'u qaddamani quduumu man qad jaa'u ñetti xaafa ngoog mooy ñetti téeméer yi xat jaawo jaa jiim gaago mooy ñett yi mooy ñett yi bi bu cher yi yaagoogu mooy fukki yi mu junj ñetti téeméer ak fukki ak ñett seen seen lim boobu le ak li nga xam ne moom la wax ci biir nee na bayit woowee ci lañu bég moo tax guddi googee ñu ñëw fi man lu bari وذكر مع امره هذا طرفا من بعض امور الشيخ سيدي مختار الكنتي لن تدنا اتشاب توتي تي مبير الشيخ سيدي مختار الكنتي رضي الله عنه كان هو يستشهد به استشهادا لطيفا مال ندف كي دف سيره وذلك انه ذكر محاجته المشهورة مع ابن بونا في في بيت إيه ابن بونا لا لا ما نجي تدو داغنتي غم دو داغنتي غوسي وغي مو داغنتي ابن بونا في بيت ابن بونا وقطعنا بما به الولي اخبر كفر عكسه النبي ابن بونا دا وقت بيت ولي دوغو تي لو خامني لي اول wax nako neena kiifar la mu wuuteeg loo xam ne ab yonente wax na ko ab yonente moom lu mu wax dañ caa war a dogu aw wàll yi lu mu wax dañ caa wuri su caa dogu dogu ci kéefar loolu la ibnu buna wax ah cheikh sidi moxtar kunti doon ca def muhaajaat ak moom ila an qaala kaana radiallahu taala anhu azima sali maa rasulillahi salaa sallam ba wax ni moom di ku rëy mbir la ak yonente bi salaa sallam moom cheikh sidi moxtar kunti kaana yaatihi maa baadi sahabatihi nekkoon ne di dikkal ko moom yonente bi salaa sallam ànd ak yenn sahaba yi radiallahu taala anhu xaale ibnu cheikh sidi mohamad radiallahu taala anhu دومم دني وشيخ سيدي محمد واحنا تاو بيت بوقتنا كان وبعض صحبه على ابي ذوي ورود وهو عقلا ما ابي يعني كان نكون من ينات بن صلى الله وبعض صحبه مقلم صحابه على ابي ذوي ورود دان دان دان نكون من برومي لوتي سما باي وهو تلولو دي عقلا تم خل ما ابي بني فكو لولا وقت بي لولا دوم دي وقت بي دو ينات بن صلى الله عليه وسلم اك صحابه دان ني ديكال بايام تلولو خل بنكو شريعه داكو مملني day def istishaat seere ci dikk gii ko ahlu badrin dikkal ci koo xamante ni kii xelam war naa daj di ci jéem a linkaar dara won ko ne mu wone ne cheikh sidi moxtar kunti radiallahu anhu ku réewani mbir la ak digganteem ak ibnu buun diggante ba yonente bi salaa sallam ba yonente bi daal ko dikkal moom saxaabaam yi ibnu buuna moomee dib naar boo xamante ni bi mel na ni taxul woon a gëm mbirum tasawuf daan waxte yu mel noonu mu daan te def mu xaajaat ak moom qultu ma wax ni ولعل في ذكر هذا البيت ومضمونه إشارة إلى أن ورودهم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم نينا yaakaar naa ne nekk na ci bayit bi ak li mu làmboo ak junj ci ne yonent bi salaa sallam moo ànd ak saxaaba yi ci jamono yooyu ñuy ñëw ci kër gi wa yooyu hada al ihtimal tasrihu fi baad al xikaayat te nee na loolu sax dëgër na ko dëgëral na ko leeral goo xam ne leeral na ko ci yenn nettali yi di wane ne saxaaba yi fuñ ko dikkale yonent bi salaa sallam lañ daa àndal ndax ahlu badr lay doon te mooy seen njiit yonent bi salaa sallam moo doon njiitu ahlu badr fu ko ahlu badr dikkale rek moom lañ àndal بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتاني وقت كتابتي لهذه الورقة إلى غير ذلك يحقق wala yunkar alhamdulilah ala ma hunalika i li nga xam ne dana koy faral di wax di ko leeral ci yenn nettale mi di wax ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam dikkal na ma jamono yi nga xam ne moom lay bind kayit wii ak yu mel noonu yoo xam ne bari na lool lu mu koy wax yoo xam ne fu mu ko waxee dañ koy dëggal waaye kenn du ci am xalaata teg dara kon ñoo ngi sant yàlla ci loolu kon loolu itam di di di di di lenn ci yi nga xam ni yéeme na yéeme goo xam ne day mel ni ëpp na xel yéeme na yéeme goo xam ni war naa tax ba taalibe bi pastéefam gën a dëggu ak paspasam gën a dëggu ak ngëmum Sëriñ Tuubaa ko doyloo ko mu ah doyloom kooku wóoloom gën a dëggu ndax koo xamante ni kii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da nga koy wax ay wax mu di ci bég bay ñëw di la siyaara si koo xamante ni kii saxaabatu rasul da ngay wax ci ñoom ay bég ñu ñu di ci bég bay ñëw ñëwee fi yow ba ñëw ñëwee gën a jël la tey nga xam ne nit ñu baax ñëpp kenn ku nekk loolu rek la bëggoon a loolu la bëggoon a am te kenn mënu ko am. yëmul foofu waaye nit yàlla yi nga xam ne ñoo demoon bu yàgg di gis ay waxam sunu borom di leen ko di leen ko yankeeweel ñuy ñëw seenu ko roox di nettali si lii lépp nag nekk na mbir yoo xam ni li mu waxoon ci gannaaw ne nekkul loo xamante ni lii kenn dana ko mën a xam ku dul ka ko mos lenn lu ne ka ko mos rek mooy ka ko mën a xam suukar li muy neex ne ku ko mosul woon kenn du la mën a wax li mu saf neex na rek lañ la mën a wax waaw lu mu saf lu ne ka ko mos rek ko xam kon mbir yu mel nii ki nga xam ne moo ci mos dara rek moo ci am zawqa moo ko mën a xam ni muy demee dëgg-dëgg ku dul kooku li la ci war mooy gëm rek kon nag ñun gëm mooy li nga xam ne mooy li ci war xam ni kii jëmm la joo xam ne lu mu bind lu mu wax na mu amee rek ne ko naar ba waxoon ci ginnaaw lu mu wax rek lu am la du bind du wax mukk lu amul wa minha bokk na ci maa axbarani bi axi fillahi li nga xam ne sama menn mbokk nettali na ma ko ka nga xam ne sama mbokk la ci yàlla di sama mbokk ci sëriñ bi alxalil alxabib xarit la soppe la sayidul jalil sang bu màgg la bu ñu wax xabal ibnu ibnu ibnu ibnu bay addaymaani ab naar la woon awalan moom ko njëkk a nettali suma sayidi muhammad ibnu afluwaat ginnaaw ba sang bu ñu ko naar bu ñu wax muhammad ibnu afluwaat nettaliwaat ma ko saaniyan suma saahibal xissati ginnaaw ba borom xissa bi ci boppam nag soog ma ko nettali saalisa ñoom ñett ñëpp nett nañ ma ko muy abdul wadud ibnu sayidi mahmoud alxaaji wa dalika anna seykha kaana fi baad al ayaami fi fi lmubaarakati fi Jurbel yastabni masjidan sëriñ bi daf doon tabax lu jàkka ci benn bis si njaareem min baadi masaajidihi sigaari ci jàkka yu ndaw yi nga xam ne ñoom la defoon ci biir kër gi ndax xam nga ni biir kër gi amoon nay jàkka xawla al qasri ca wetu kër ga fa amara sayid Abdul Wadud mu daal di woo naar boobu ñuy wax Abdul Wadud bi an yuqawima lahum ay albaaniina al mixraab ne ko demal ca ma tabax defarkat yooyu defar jàkka ja nga jubbanti leen mixraab ba qaala sayid Muhammad faraytu Abdul Wadud Muhammad ibn Abdul Wadud ma ko fekke woon nee na ma gis Abdul Wadud asraa lil imtisaal jóg gaaw mel ne ko ci sawar lool di defi ndigal la fa qultu fi nafsi man ci saa bopp laytahu i'tazara aka neexoon mu lay te bañ a dem ndax liñ ko sant lu jafe la wa yakilu al-amra ila shaykhi xawfan minhu aka neexoon mu delloo mbir mi sëriñ bi rek ngir li may wax lépp maa ngi ciy yulu maa ngi ciy li ko tax ma di ko wax rek mooy ragal an yaxtaa fi binaa cheikh mu moyal mihraabu sëriñ bi rek te kon dara du ko jar qaala fa maa labisa an xattahu wa raja nee na diir bu gàtt mu rëdd ko daal di dellu si ilayya wa yataajab ma ngi ñëw di yéemu fa ka annama kursifa lahu amma fi damiri mu mel ne dafa gis li nekk ci sama xel wa ana astahyi min an aqula lahu seen waaye kersawu naa koo wax dara fii rek li nekk ci sama xel kersa naa ko wax dara waaye mel ne moo xam na ko fa qaala lii nee na Muhammad Abdul Wadud ne ma yaa axi yow sama mbokk lamma waqaftu muxtabiran lil ijtihaad ba ma ñëwee taxaw jublu xibla di tàmbali di def sama lijtihaad di jéem a nattale fan la xibla bi nekk ak di xool li axuttal mihrab ba ngir bëgg rëdd mihrab ba kasafa allahu alxujba bayni wa bayna albayti fa aayantu albayta nafsahu fa xatattu kama situ muwajihan lahu nee na bi ma ne tegg sama tànk di jublu xool penku di jéem a xool di jéem a natta di jéem a littihaab dañu daal ni murit sama diggante kaaba ga ma ni ko jàkka jàkkaarloog moom ma daal di rëddee na mu ma neexee su ma tajaba ba ma tabee sama teggee sama tànk gisatuma ko hada min fadlillahi lii day ci gëneel yàlla la karamatan li hada alwali di karama bu rëy rëy ci kilifa gii wali muridihi sadiq ak muridam bu màgg bii boo ko dëggal bii wa kaana Abdul Wadud qad xaj naar boobu ñuy wax Abdul Wadud nekk na ko xam ne demoon na ajoon na ajoon na demoon na Makka ci jamono booba muy loo xam ne lu yéeme la nee na ba ma ne tegg sama tànk di jéem a xool nan laay nattalee ba xam fan la Kaaba gi féete dañu ne murid sama diggante Kaaba gi ma ne ko jàkk daal di rëdd na mu ma neexee loolu yéeme na lool wa minha qawluhu laylata sadis wal ishrin min jumaada saaniya ama jamsas wa kaana laylata xamsi wa kaana laylata xamis bokk na ci xisa yooyu le lam ñu wax ku dikk ñaar fukk ak juróom benn ci jumaada saaniya atum jamsas ñeen fukk ak ñett te nekkoon na guddi gi alxames wa huwa jaalisun yaamuru bi naqli mihraabihi mu ngi toog di wax ne di di wëlbati lu mihraab ba mihraabu jàkka ji ne nañ ko toppal ila shimaal qalilan jàkka ji ne nañ ko wëlbati maa xam nga jàkka ji dénk maanaam ja ja jàkka ji dénk la daan doon joo xam ne dañ koy xadde seng te da nga xam ne man gis naa ko fekk naa ko ma. nga xam ni muy wax ni dafa toog jubli penku ne mihrab bi nañ ko ne dees tuuti mu jëm càmmoñ qalilan hada al mahal alladi nuqila ilayhi huwa al muqabil li wasat al kaabati daa di wax ni fii ma koy fii ma koy dandal lu jëmee moo jàkkaarloog digg kaaba ga wal mihrabu al awwal muqabilun lahu walakin hakaza awsat daa di ne mihrab bu njëkk bi sax jàkkaarloo naa kaaba ga waaye fii moo gën a diggu hada bi nafsihi bila wasitatin bal samaa minhu nee na lii ci waxi sëriñ bi maa ko déggee ci moom kenn doxul sama digganteeg moom baadal isa ginnaaw buñ alaxir ginnaaw buñ jullee gee mujj ja ki nga xam ne nag mi ngi toog ne jàkkaarloo kaaba gi daal di wax ne nañu ne diis mihrab bi càmmoñ tuuti mooy tolloog digg kaaba gi bu njëkk bi juboo jàkkaarloo nag kaaba gi waaye daa xaw a koñe waaye buñ ne jëm ko buñ ko jëmee càmmoñ tuuti mooy jàkkaarloog digg kaaba gi nee na loolu moom maa ko dégg ci sama sama sama nopp kenn doxul suñu diggante loolu moo ma firndeel digg kaaba gi nee na loolu moom maa ko dégg ci mooy mooy mooy mooy ñu ngi ci jublu nasihatan lil ixwaan yi wa lil muridina labire mbokk yi labire murid yi ci kii ngir ñu xam ko wala ñu xam ci ndax koo xamut loo xamut doo ca mën a jëriñu waaye moo tax mu bëgg ñu xam ko ba mën koo gëm ba mën koo jàppee ni ñu ko war a jàppee ba mën caa jëriñu dafa jeex ñu war a yemaat fii ba alxames ak jàmm ñu wax aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
jërëjëf sëriñ Habib Diop ñu ngi sant bu baax a baax ci waxtaan yu am solo yi nga xam ne dégg nañ ko léegi te lépp di loo xam ne kon day dolli suñu kóolu ci sëriñ bi ndax sëriñ bi darajaam ñun ñëpp xam nañu ni mën ñu ko jot ndax itam xiste yi nga xam ne jot nañ koo dégg yu ci bari gën naa feeñal li sëriñ bi waxoon ni karaamati xattu yadi di wane ni ay karama moom sëriñ bi mi ngi ci bind mi nga xam ne moom lay bind muy xasida yi loolu di lu am solo loo xam ni sunu borom defal na ko ci xasida yi te itam dara jël sëriñ bi bu mu seetee li nga xam ni jot nañ koo dégg léegi ci ay yëkkati yu ko suñu borom yëkkati ak feeñu yu ko waa ahlu badrin di feeñu ak ay nit yu yàlla loolu lépp di wane ni dara jël Seexul Xadim kon mel na ni kenn duñu mën mën taxaw fi mu yem. suñu borom rek moom moo xam fi mu yem ndax ak màggam te itam xam naa ne li nga xam ne moom nga mujjee wax léegi ci naar bi nga xam ne ci naar bi nga xam ne sëriñ bi da ko doon rëddloo jàkka ngir mu tolloo ak xibla ba mu dem suñu borom dimbali ko wuñul ko kaaba ga ba mu jàkkaarloog moom bu rëddoo xibla ba ba noppi loolee dañ ci digg rek ni ndigal day loo xam ne lu am solo ci taalibe ndax dégg ndigal loo xam ne sëriñ bi jox na la ko nga am pas-pasu dem jëfee ndigal la loolee mën naa tax suñu borom gàttanduloo defe la ndigal loolu loolee mën naa tax suñu borom gàttandu la defal la ndimbal ba nga mën a jege ndigal loolee loolee xam naa ne kon suñu at bi mel na ni doon na lu am solo loo xam ni bala ñoo tàggatoo ak mbokki déglukat yi nga indi ci ay soññe ak ay leeral yu aju ci jëfe ndigal.
waaw moom day loolu day doole firndeel loolu nga wax rek ne ab taalibe moom bu fekkente ni parce que fa mu dëgg la ni ñu ko digal dana ko mën ndax naar bi bi ko sëriñ bi ne demal jubbantil ma ba muy jub. maanaam daa jug rek ngir defi ndigal la waaw daa daa dama jubal sama xibla ba daa jug rek ngir defi ndigal la moo tax ba mu demee loolu fekk ko ci loolu mooy firndeel ni taalibe bu mu doon bu pëstee fa mu dëggoo bu ko sëriñ bi bu ko sëriñ bi digalee suy jug rek dana man lañ ko digal ndem pëstee fa mu dëggu na looloo taxoon sama waajur bi nga xam ne moom may jox sëriñ bi la ma doon dénk bokk na ca boo demee luñ la digal na nga ko def buñ la tëddloo na nga tëdd buñ la bayloo na nga bay buñ la sàmmloo na nga sàmm loolu mooy firnde mooy mooy wanal ni maanaam murit ci ndigal rek lay jëriñoo amul lu sedd amul lu tàng ci jar ci ndigal rek lay jëriñoo te it ndigal moom saa su jibee su su ko su ko sa pët sëf matee boo jógee rek da nga ko mën kon ndax loolu mooy firndeel li nga xam ne moom la naar bi def nii daan jëfandikoo ndax naar boobu nga xam ne moo ci doon jaaxal jaaxle kilifa la ni moom te mbir mi jaaxaloon na ko la tax mu jaaxal ko moom mooy daa moomut ndigal la waaye ko moom ndigal la moom ba mu lay bërit yëf yi jaaxale ko mu demee moo tax mu am ci boobu bunt kon murit moom ndigal rek saa su ndigal jógee lu mu niru niru niru niru ànd nag pasteur te jóg te fas koo defi soo demee rek sëriñ Tuubaa ci boppam mooy sottal ndax sëriñ bi lu mu la digal moo la koy defal ba noppi bàyyee la sag ba jox la yool ba ndéem sa pasteur mane na ko matte na ko kon yàlla na na sunu borom defal pasteur ak ku dëggu ak taalibe ku dëggu ban mën a liggéeyal sëriñ Tuubaa ni ko bëggee jërëjëf jërëjëf sëriñ Abdou Diop ñu ngi dellu di la sant bu baax a baax di di ñaan suñu borom yàggal taxawaay bi lépp aju ci liggéey sëriñ bi ñuy dellu di sant déglukat yi nga xam ne bi émission bi tàmbalee ba léegi ñu ngi koy bàyyi xel ñu di leen jox daje ba beneen yoon ki nga xam ne moo nekkoon ci micro bi di seen mbokkum taalibe Alioune Guèye wut woon bi sëriñ Assane Sow xam naa incha allah ci émission yi di ñëw di ngeen ko diggaat kon ñu di leen jox daje ba beneen yoon incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu